nee na ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi bind jaam ñëpp nee na moom bi nga xam ne moo bind jaam yëpp te lu ko neex mu dogal ko ci jaam ñi te lu neex mu dogal ko ci jaam ñi kenn mënut a dox digganteem ak dogal bi te kenn ku mën a dox diggante yàlla ak dogal bi amut eh, ba mu wàccee ci alquran nag nee na ba mu wàccee ci alquran nag xalaqal mawta wal xayaata. xalaqal mawta wal xayaata. li yabluw li yabluwakumoo. li yabluwakumoo. ayyukumoo ayyukumoo. axsanu amala axsanu amala. ba mu wàccee ci alquran. ba mu wàccee ci alquran. njëkk a tudd faatu. njëkk a tudd faatu. doog caa teg dund. doog caa teg dund. booba lañ xam ne. booba lañ xam ne. sunu borom lu mu jox priorité ci ci alquran. sunu borom lépp lu mu jox priorité ci alquran. loolu moo ëpp doole. loolu moo ëpp doole. la mu koy booleel. la mu koy booleel. lu ko waral. lu ko waral. dunduk àdduna gi. dunduk àdduna gi. yonent yi bari mën nga leen a lim. yonent bari mën nga leen a lim. suñu borom wàcce ci ñoom ay téere. suñu borom wàcce ci ñoom ay téere. waaye ku matal rek. waaye ku suñu borom woola. suñu borom na ci nag. am ñu am ay jagle. jagle yoo jagle yoo xam ne. suñu borom moo leen koy jagleel. borom moo leen koy jagleel. kon waxtaan wi. kon waxtaan wi. xanaa ngir mën a yeewi nee na xanaa dañ koy def ngir mën a yeewi sëriñ seex mu sëriñ Abdou Latif. ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Muntaxa. ak sëriñ Cheikh Mouhamad Cheikh Mouhamadul Muntaxa. imaam imaam. ñu mën a dem ci kër gi. ñu mën a dem ci kër gi. bu ñu amee leneen lu ñuy ñu amee ñun leneen lu ñuy àggale. ñu àggale ko ñu àggale ko. sëriñ Modou nag. sëriñ Modou Mamoun nag. sunu borom defal na ko ay jagle. sunu borom de defal na ko ay jagle. ndax li li mu mujj liggéey. ndax lii mu mujj liggéey. daal defe naa man daal defe naa ne. œuvre bu gën a rëy. œuvre bu gën a rëy. tabax juma. tabax juma. ab jullit mënu koo def. ab jullit mënu koo def. mu tabax juma. mu tabax juma. Serigne Touba Serigne Mountakha. ba dem ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. mu jàppal ko bis. mu jàppal ko bis. muy bisub tey bi muy bisub tey bi ba mu waxtaanee ko ak bokkam yëpp. ba mu waxtaanee ko ak bokkam yëpp. ak magam ju baax ji Serigne ak magam ju baax ji di Serigne Sidi. ak rakam ju baax ji di Serigne Babacar mu kàbbaroo. ak sëñ Saliou. ak sëñ Ibataal. ak sëñ Ibataal. ak sëñ Sidi mee di doomam. mu waxtaanee ko ak ñoom. mu waxtaanee jii. fekk mu nekk àjjana. fekk mu nekk àjjana. foofu. foofu. danaa fi leeral tuuti. danaa fi leeral tuuti. muy ñi nga xam ne ñooy wayjuru sëñ Sidi. muy yéen ñi nga xam ne yéenay wayjuru sëñ Sidi. ak yéen nga xam ne yéen moom gaawaan fi ak yéen ñi nga xam ne yéen a moom gaawaan fii mu ne. Serigne Sidi mu ndaw mii. Serigne Sidi mu ndaw mii. teggiwu leen. teggiwu leen. dem yët caabi jumaa dem yët caabi jumaa ji. sëñ Muntaxa. sëñ Muntaxa. déedéet sëñ Muntaxa. sëñ Muntaxa. dafa jàppaloon wayjuram. dafa jàppaloon wayjuram sëñ Maamun. le treize. le treize. ñu jàppoon ne. ñu jàppoon ne. du fi mën a àgg. du fi mën a àgg. ndax xew-xew bu rëy bi fi am. ndax xew-xew bu rëy bi fi am. muy sëñ Maamun mi dem. muy sëñ Maamun mi dem. waaye ginnaaw bi. waaye ginnaaw bi. ci ak njàmbaaram. ci ak njàmbaaram. mu góor mu góorgóorlu. ba liggéey bi mën na fee àgg. ba liggéey bi mën na fee àgg. dem ca sëñ Muntaxa dem nag ca sëñ Muntaxa ngir mu yeesalaat ndigal li ngir mu yeesalaat ndigal loolu mu joxoon baayam daf ya sëñ Maamun daan toggal sëñ Muntaxa ci poroxaan ndab ya nga xam ne moom la sëñ Maamun daan toggal sëñ Muntaxaa ca poroxaan mu togg ko yóbbu ko moom sëriñ Siidi mu dem togg ko yóbbu ko loolu moo tax loolu moo tax ñi yëgul bi muy jox caabi ji sëñ Muntaxaa ñi yëgul bi muy jox caabi ji sëñ Muntaxaa loolu dong moo ko waral lool dong moo ko waral ba mu demee ba mu demee mu jox ko caabi ji mu jox ko caabi ji ne ko liggéey ba itam àgg na na ko liggéey ba it àgg na mu ne ko da ngay toog foofu kon sëñ Muntaxaa ne ko da toog foofu kon bu Seex Anta ñëwee bu Seex Anta ñëwee ngeen ànd ñëw ngeen ànd ñëw bi ñëwee ma laaj ko caabi ji. bi sëriñ Seex ñëwee woo sëñ Sidi laaj ko caabi ji. mu jox ma ko. mu jox ko ko. mu yëkkati ko teg ci loxol sëñ Muntaxa. mu yëkkati ko nag teg ko ci loxol sëñ Muntaxa. lii mooy caabi jumaa ja. mu ne lii mooy caabi jumaa ja. mu ne ma dencal ma ko. mu ne ma dencal ma ko. ba mu jege. ba mu jege. mënu ma ci woon a wax dara nag. mënu ma ci woon a wax dara nag. te tey jii ñëwut. te tey jii ñëwut. waaye nii rek la demee. waaye nii rek la demee. sëñ Sidi. sëñ Sidi. ngeen ñaanal ko. ngeen ñaanal ko. lu baax rek la doon def. lu baax rek la doon def. waaw ginnaaw waay juróom. ginnaaw waay juróom. am na jëf yu baax yu mu daan defal sëñ Touba. na jëf yu baax yu mu jëfal sëñ Touba. di ko teg ci loxol sëñ Muntaxa. di ko teg ci loxol sëñ Muntaxa. sëñ Muntaxa jàpp jëf yooyee. sëñ Muntaxa jàpp jëf yooyee. jëfi baayam rek la doon àggale. jëfi baayam rek la doon àggale. waaye musta teggi ay baayam. waaye musta teggi ay baayam. musta teggi waa gaawaan. musta teggi waa gaawaan. te du tey du leen teggi mukk. te it ba ba àdduna tukki du leen teggi ba ma ko sëñ Muntaxa joxe. ba ma ko sëñ Muntaxa joxe. na ma dencal ma ko ba mu jege. na ma dencal ma ko ba mu jege. ma wëlbatiku. ma wëlbatiku. bi nu jógee ci kanam sëñ Muntaxa. bi nu jógee ci kanam sëñ Muntaxa. ma joxaat ko caabi ma joxaat sëñ Sidi caabi ji. ne ko dencal ma ko yow it ba mu jege. ne ko yow it dencal ma ko ba mu jege. ban àgg ci ban àgg ci. waaw. naa moo nekk nii. defe naa ne caabi yaa ngi nekk nii. ci loxol sëñ Sidi. ci loxol Serigne Sidi mi nga xam ne mooy taawub sëñ Ibrahima ni ko sëriñ Babacar mu kabbaru waxee itam. ni ko sëriñ Babacar mu kabbaroo waxee itam. ne ñoom ñi nga xam ne. ne ñoom ñi nga xam ne. ñoo bokk ak sëñ Maamun. ñoo bokk ak sëriñ Maamun. muy kër gi muy kër gi defar gi ko sëñ Maamun defar. defar gi ko sëñ Maamun defar. ak jumaa ji. ak jumaa ji. jumaa moom néegub yàlla la. jumaa moom néegub yàlla la. jéemuñu cee doon dara. jéemuñu cee doon dara. ku fi nekkal xalifa maam Cheikh ku fi nekk di xalifa maam Cheikh Anta. yaa yaa koy yor. yaa koy yor. kon nag caabi ji. kon nag caabi ji. ci loxol sëñ Mor Fati. ci loxol sëñ Mor Fati. lañ ko war a teg. lañ ko war a teg. moo waraloon. moo waraloon. léegi sëñ Axma wooma. léegi sëñ Axma wooma. ak sëñ Maam Mbacke Anta. ak Maam Mbacke Anta. ñu bokk di ci waxtaan. ñu bokk di ci waxtaan. ne waxtaanee ba noppi. waxtaanee ba noppi. woo sëñ Sidi. woo sëñ Sidi. ak sëñ Babacar. ak sëñ Babacar. ak sëñ eh, ak sëñ ak sëñ Ibataal. ak sëñ Saliou. ak sëñ Saliou. ñu ñëw ak ñi ko war a fekkee. ak ñi ko war a fekkee ñëpp. ci bokk yëpp. ci bokk yëpp. ñu bokk waxtaanee ko. ñu bokk waxtaanee ko. waaye julli far jot. waaye far julli jot. moo tax euh, demewut noonu. moo tax demewutoon noonu. waaye caabi jaa ngi nii. waaye caabi jaa ngi nii. li ci siñ sëñ Babacar wax rek. li ci sëñ Babacar wax rek. moom moo ciy nekk waaw. waaw jumaa ji nag. nee na jumaa ji nag. sëriñ Mamoun. sëñ Mamoun. gannaaw ba mu demee ba léegi. gannaaw ba mu demee ba léegi. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. ñi ngi ñëw. ñi ngi ñëw. di joxe seen i barkeelu. di joxe seen i barkeelu. ku ñuy wax soxna Dégène Fall. ku ñuy wax soxna Dégène Fall. moo moo yónni doomi suñu Mor Ndiaye mii. moo yónni doomi sëñ moor Ndiaye jii. sëñ Mor Ndiaye pàkku Lambaay. sëñ Mor Ndiaye pàkku Lambaay. daanaka murid yëpp ko xam. daanaka moom jërut wax murid yëpp ko xam. am na lim bu baax bu bu rëy bu mu andi. am na lim bu rëy bu mu fi un million. un million. nañ ko ci loxol sëñ si di muy xalifab sëñ Ibra Ndar teg nañ ko ci loxol sëñ si muy xalifab sëñ Ibra mu teg ko ci loxol sëñ Babacar mu teg ko ci loxol sëñ Babacar sëñ Babacar it teg na ko ci loxol sëñ Sidi waaw keneen ko am looy def ci bis bi itam keneen ko am daal nee na bàyyeegut moom sëñ Muntaxa ci boppam daal moom nee na bàyyeegut ndax ba sëñ maam hmm, soxna Xadi Jaay mu ne soxna Xadi Faal Njaay itam jàmbaar la. ak njàmbaaram. moom ak njàmbaaram. ñu bare bari seere nañ ko. ñu baree bari seere nañ ko. mook soxna yomb. mook soxna yomb. ak ñi mu bokkaloon daara ji ci kër sëñ Maamun. ak ñi mu bokkaloon daara ji ci kër sëñ Maamun. ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ. ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ. kenn ku ne da ngaa takkoon ak laxasaay. kenn ku ne daal da ngaa takkoon ak laxasaay. waaye sëriñ Muntaxa nee na. waaye sëriñ Muntaxa nee na. bi sëriñ Maamun di ànd ak moom. bi sëriñ Maamun di ànd ak moom. tey taxutoon muy ànd ak moom. nee bisub tey taxutoon muy ànd ak moom. adduna taxutoon muy ànd ak moom. taxutoon muy ànd ak moom. ëllëg ci àjjana ja ëllëg ci àjjana ja moo taxoon muy ànd ak moom moo taxoon muy ànd ak moom kon nag du tàgg du tàggoog yéen mukk nee na kon nag du tàggoog yéen mukk du tàggoog njabootu mukk du tàggoo it ak njabootu sëñ Maamun mukk te wommatu leen te wommatu leen ba àjjana ba àjjana mu teg leen ci loxol sëriñ Tuubaa mu teg leen ci loxol sëriñ Tuubaa moom nee na ab sàmm la rek. nee na moom ab sàmm rek la. boo xam ne. boo xam ne. sëñ Tuubaa koy sàmmloo njaboot gi. sëñ Tuubaa daal moo koy sàmmloo njaboot gi. moom ñëpp rek mu ngi leen di sàmm. nee na ñëpp nag murit yëpp mi ngi leen di sàmm. waaw sëñ Sidi. sëñ Sidi. kon sëñ Muntaxaa ngi lay nuyu. kon sëñ Muntaxaa mi ngi lay nuyu. yaag njabootu sëñ Ibra Ndar gépp. yaag njabootu sëñ Ibra Ndar gépp. di nuyu waa Daaru Salaam gépp. di nuyu waa Salaam gépp. bàyyiwul kenn. bàyyiwul kenn. di nuyu. taalibe yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp ak ñi nga xam ne sax ak ñi nga xam ne sax ay soppe lañ ay soppe lañ du ñuy murit du ñuy murit te ñëw fii te ñëw fii li ko dalee ca maam maram daal la ko tàmbalee ca maam maharam daal ba ci maam Balla Isa ba ci maam Balla Isa rek njaboot googu yëpp njaboot googu yëpp sëriñ ba ngi leen di nuyu sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen sant di leen sant teewaay bi ngeen teew fii ci teewaay bi nga xam ne teew nañ ko fii lii nag lii nag ndamul daaru salaam lu rëy la ndamul daaru salaam nag la lu rëy lu rëy rëy lu rëy rëy ndax taxawal jumaa ndax taxawal jumaa moom la colonialiste bi moom la colonialiste bi doon bañ xam naa ma jéggulu monsieur le sous-préfet xanaa ma jéggulu monsieur préfet euh, euh, nuyu ko nuyu la en passage en passage waaye waaye lambay gu jege gii mu nekk la lambay gu jege gii mu nekk la mu ne lambay gu lambay nag daa morom foofu daal xam naa fa nga dëkk yow. waaw mu ne Lambaay mu jege gii mu ne. ñi gënoon bañ a gis juma. ñi gënoon a bañ a gis juma. <laughs> fa lañ nekkoon fa lañ nekkoon. ak sëñ ak sëñ bi Njaay kat. <laughs> nañ tamit am na am na leneen lu ñu xamoon. mu ne daal am na leneen lu xamoon. lu dul juma. waa gis nga ko lañ doon bañ sëñ Tuubaa def na ko fa. juma ju rëy rëy rëy. juma mm. mooy doxee noonu. nee na tubaa mooy doxee noonu. waaw. waxtu wu ne ma wax ko. nee na waxtu wu ne ma wax ko. Euh, bis bi nga xam ne. bis bi nga xam ne. ci la tubaab yi jëlee woon borom Touba Ndar. ci la tubaab yi jële woon borom Touba Ndar. andi ko Ndakaaru. andi ko Ndakaaru. war koo embarqué. war koo embarqué. mu dem Gabon. mu dem Gabon. ci lañ ko tëjee woon ci kaso bu metti boobee. ci lañ ko woon ci kaso bu metti boobee. Euh, muy wax ne ida dakartu zalikal mabita ba muy wax ñaari bayitam yooyu naan ida dakartu zalikal mabita hmm. wa salikal amira wa sabota taral ilal jihaadi bil armaahi nafsi walakin sabba anil maahi booba métti woon na lool nee booba day ku dégg waxi sëñ tubaab yi da xam ne métti woon na waaye fan yam ko defoon waaye fan ya ko ya loola amoon tubaab yi dugal ko fa tubaab yi dugal ko fa ci mois de septembre ci mois de septembre ca fin septembre ba ca fin septembre ba sax ci la sëriñ Muntaxa ñëw ci la sëriñ Muntaxa ñëwaat inauguré inauguré jumaay Masaalikul jumaay Masaalikul Jinaan yi ne lëng ci taxaw na lëng rajo yi ñu ci def rajo yi ñu ci def boo nekkee tëngeej di ko dégg boo nekkee tëngeej di ko dégg kon nag sëñ Tuubaa gañe na kon sëñ Tuubaa la mu waxaloon boppam na ku ànd ak moom gañe na ku ànd ak la waxoon seen loolu la waxoon rek sunu maam maam Cheikh Anta ba mu ko ba mu agsee Ndakaaru ba mu agsee Ndakaaru gi ne ci gaal gi woolu ko woolu maam Cheikh Anta tubaab bi génn taxaw ci buntu escalier bi ne ana Cheikh mhm. mu ne maa ngi nii mu ne ko kaay wuy marabu maam mm. Cheikh Anta Ndaw ñetti ñetti escalier yi Cheikh Rafal jóg la fañ maam Cheikh bi ne ba yéeg ci boto bi mënatut a dox benn tànk muy raam ba mu duggee fekk sëñ bi toog jublu penku copp ndaayam la kawar gi ne seex wër ko weye saq lépp maam Cheikh xam ne kii ne neexut a gis mu ne ko seex dem nañ ba ñëw mm-hmm. maam Cheikh ne ko alhamdulilah mu ne ko seex ñëw nañ mu ne ko alhamdulilah mu ne ko seex defu ñu fa lu ñuy réccu mm. defuñu fa lu ñu leen di xeebe mm. seex mu ne ko mbàkke mu ne ko wàccal bagage yi mu ko jëmm jee mënta ndax booba Cheikh Anta bu ma ko wàcce woon mu rëy rey seen bopp mu ne ko daa mat a defaraat mu ne ko waaw mu ne ko bisimilah maam Cheikh taskaala nga wat sëriñ bi leewi weya fomp ñaq wi nee na fa ma làmp daj fa tuut boo xam ne toog na na cuñub ginaar mën ne ko lii nag mu ne ma nekk ment yaa fa bari tey ba sëñ maam Cheikh noppee na ko seex wàccel bagage yi nee na bi ma génnee yor ñaari walis yi bokk der bi Cheikh Rafa ma boot na ma cëpp ci suuf sëñ Tuubaa ci ginnaaw borom sabadoor bu weex ba na ko seex dem nañ ba ñëw hmm. des na diir bu gàtt fu ngeen déggati dara man hmm. moo tax sëñ Babacar jaxate na ko foo ma sa dégg aw yiw ak lu baax jóg na fa tey ay hmm. xotta des fépp mbàkke yow yaa di nga waaw léegi kon maanaam li may tëje man nee na moom li muy tëje moo di ndigal li mun Muntaxa joxoon mooy ndigal liñ sëñ taxaa joxoon te ndigal loolu. te ndigal loolu. mu fekk ñii fi nekk itam. mu fekk si ñii fi nekk itam. di di bàyyi ay bàyyi ci man. di ay bàyyi ci man. muy njabootu suñu brandat. muy njabootu suñu brandat. njabootu alaaji suñu tàkko. njabootu alaaji suñu tàkko. ñoom itam ak suñu njabootu suñu saam. ak njabootu sëñ saam bi. sama xarit baa nga ne xalifa alaaji saam. sama xarit bopp di sëñ daam di xalifa alaaji saam. waaw defe naa ne. defe naa ne. moo wutu woon suñu brandat ci kër gi moo wutu woon suñu brandat ci kër gii waaw fekk naa ko fi ay yoon. fekk naa ko fi ay yoon. waaye ñoom. waaye ñoom. ñëpp dañoo am baat ci man. ñoom ñëpp dañoo am baat ci man. ndax ñoom ku ci dul sama baay rek. ndax ñoom ñii ku ci dul sama baay. di sama nijaay. di sama nijaay. kon ñoom ñëpp samay kilifa lañ. kon ñi suñu gaawaan jur moom samay kilifa lañ. xanaa lenn daal laa ci mën a wax. xanaa daal lenn laa ci mën a wax. sama waajuru jigéen daal sama waajuru jigéen daal moo mag ci sëti maam Cheikh Anta yi fii ñu toll moo mag ci sëti maam Cheikh yi moo mag ci sëti maam Mor Jaara yi moo sa mag it ci yi kon nag kon nag ku ma yilif itam koyit ku ma yilif itam boo demee sama yaay yilif la rek boo demee rek ma fa yoo loolu <laughs> kon nag sëñ bi kon nag sëñ bi eh, sëñ eh, Cheikh Abdou si moom Serigne yow Serigne Cheikh moom Cheikh Abdou Latif eh, len mat lii mat naa jot li mbooloo mi nee na lii mat naa jot li mbooloo mi gis nga wàcc sa bopp gis nga wàcce sa bopp du tee jot sab cër du tee jot sab cër du tee suñ boroom jox la ak cër du tee suñ boroom jox la ak cër sëñ Abdou Latif sëñ Abdou man xam naa ko bu baax a baax man mii de xam naa ko bu baax a baax way jur la ci sëñ Moustapha Bassirou way jur la ci sëñ Moustapha Bassirou ma ndax Mamor Diarra ko jur ndax Mamor Diarra ko jur Mamor Diarra bokk ak Serigne Touba wenn Mamor Diarra ak Serigne Touba ñu bokk ndey ak baay mu jox mu jox jox boppam sëñ Moustapha Bassirou sëñ Abdou Latif xam ne bàyyi la ci sëñ Moustapha Bassirou jox boppam sëñ Moustapha Bassirou. ginnaaw sëñ Bassirou ginnaaw sëñ Bassirou. nekk jëwriñ ju mag. nekk itam jëwriñ ju mag. ju maandu ju maandu. nituk tasawuf. nituk tasawuf. ku làqu. ku làqu. ku ñëpp xam ku ñëpp xam. sëñ Cheikh mii tey. sëñ Cheikh mii tey. lu sëñ bii def. lu sëñ bii def. te te boppam rek doy ko ca. te boppam rek doy ko ca. moom la fi moom la cay yebal. moom la cay yebal. moo tax ma xam ne. moo tax ma xam ne. sëñ Cheikh nga santal lu sëñ bi bu baax a baax a baax. sëñ Cheikh daal ñun sunu cant ci sëñ bi. sunu làmmiñ lott na ci waaye boo demee nga mottalee ñu ko. ndax bu waxoon ñaan rek. neex bu waxoon ñaan rek. waa Daaru Salaam moom. waa Daaru Salaam moom. moom duñ doyal ci sëñ bi. ñoom moom duñ doyal ci sëñ bi. waaye bañ ko yotee addee ji. waaye bañ ko yotee addee ji. mu ne addee ji day. mu ne addee ji day. bég naa ci lool. bég naa ci lool. waaye ci laa bokk. waaye ci bokk. man ci yéen laa bokk. man ci yéen laa bokk. foofee laa jóge foofee laa jógee. ci Daaru Salaam. ci Daaru Salaam. ba toog jotaay bii ma toog.